Go. Go. merci beaucoup Amdy Mignon merci merci à l'équipe maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar bu baax a baax a baax a baax gis ngeen ni antenne bi noon lañ leen koy teewalee yéen ñi nekk seen kër mën a békk mën a kontaan ñu ngi am plaisir dalalaat leen sur cette antenne de la première chaîne de télévision privée du Sénégal bonsoir à toutes et tous ñu ngi am plaisir toujours bu ñu nekkee Mali bu xam ngeen ni contentement ak mbégte bi nekk seen xol mooy nekk ci ñun ba tax na ñun tam dañu leen bégal euh, de 17h à 17h40 tey nag gars yi for nañu 7 minutes ci sama 17h40 yi Habib jël leen sept minutes sept yoo xamante ni sama yëf la mais mayaat naa leen ko ci xol bu sedd guy parce que bëggal ngeen ma te bëggal ngeen sénégalais yi toog di seetaan yëpp maa ngi kontaan bu baax a baax a baax Habib su ma la nuyoo damay nuyu boos boos bi nga xam ne démb ci groupe bi neexoon na lool ah big taf feelu ko yéen ñëpp gis naa leen <laughs> boos daa comprendrewul rek <laughs> <laughs> alors ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax di nuyu sénégalais yëpp yi ñu seetaan un peu partout dans le monde en France Italie Belgique Hollande aux États-Unis Danemark Suède ba Canada ndax waxtu wi ku ne xam na ni ñëpp a ngi toog di seetaan ndaxte heure la bu baax boo xam ni sénégalais yi sont euh, chez eux toog di seetaan donc nag loolu noonu mbégte la ci ñun ñu ngi leen di nuyu ñu nekk fii ci Afrique Mali Burkina Faso Bénin Côte d'Ivoire Zimbabwe Cap-Vert Libreville Franceville Congo yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu waa Mauritanie marax ba bikum wanni ba alaikum. Assalamu alaikum, Shitar and all Gambian people, Masakan family. Thanks for your love and the way you appreciate 2S TV. All Gambian people, we love you. We appreciate you. We together for all day, for all time. Senegalese people and Gambian people are all time together. So maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu waa Sénégal jël job sangomar gi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ñi nekk ci prison yi di leen ñaanal yàlla génn leen fa ñu nekk ñoom ñëpp kulim juum yal na yàlla teg leen loxo yal na yàlla yombal seen papier ak seen i dossier ñu ñu jugé gul depuis yal na yàlla teg leen loxo ñu ci woote waat appel ndax am na ñu tëdd ci prison yi yàgg fa lool te defuñu dara yal na yàlla euh, euh, euh, taxawu leen ba ngeen génn fa ñeen ñi ñi nga xamante ni également ñi ngi tëdd seen peine yàlla ci ni mu gën a gaawee suñu borom sottil seen i mbir ngeen dund nekkaat ci li nga xamante ni moom la nekk ñun ñëpp mën a nekk ci seen i activité mën nekk ci li nga xamante kon nag yàlla na ko suñu borom bi moo tali allah alors ñi ngi kontaan bu baax a baax a baax a baax kontaan ci yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi seetaan un peu partout euh, Bamba boo ma ko wàññilee tuuti rek sama xol bi sedd sama xarit bi maa ngi lay nuyu lay maa ngi toog maa ngi lay yëgal ni maa ngi toog ndax fii dañ ni dama war a toog Grégoire nee na ma tey euh, indil naa la cinq clip yoo xamante ni mën nañ ko jàllale sur le petit écran parce que depuis lors gis ngeen ni euh, gëj ngeen am li nga xam ni moom moo di onze treize bi ñu daan dunu de onze heures à treize euh, ndaxte xam ngeen ni euh, dañ ko changé on a que quarante minutes mais ci quarante minutes yi dinañ ci am invité dinañ leen ci mën a bégal yéen ñi toog seen kër di seetaan parce que d'ici peu de temps jeudi day tàmbali avec nos invités bien sûr ñëpp tàmbali bégal leen yéen ñi toog seen kër reetaan kaf ak la première chaine de télévision privée du Sénégal

28 17 27 su ko defee man dama lay daal di mën a teral comme ni ma ko defee démb j'ai eu à donner 25 000 francs 15 000 20 000 francs euh, aujourd'hui pourquoi pas ma joxe 50 000 francs dévi tey euh, sama yaram dafa tàng mën naa may 50 mille ak 100 mille francs ci téléspectateurs yi nga xamante ni ñoom ñooy woote euh, ci 88 628 17 27 ma nuyu bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoo may accompagner durant les minutes sama public bu nekk ci ginnaaw maa ngi leen di nuyu yére yu baax tey kan ak laay jël ci jeu bi ah yéen ñaar euh, lay ci kanam tuuti dawalal ma caméra bi pour nit ñi xàmme leen pour ñoom Habib ak Sofia bu ñuy def ñu bañ a jël ñii xam nga bu ngeen may xeex yéen da ngeen di xeex ñëpp ñaar ñi xale bi kii ak borom buy bi xàmmee ngeen leen gée nañu ba mujj gi kenn xamul lan la xam nga da ngeen di sëgg xam nga lu ngeen di def nii mais du ngeen gée dem leen ngeen sangu ci plage bi da ngeen moytu waaw ñi ma xàmmee ñëpp duñ gée grand nga bëgg jouer ah tu veux que ma jël ko photo waaw après incha allah dinaa jël ak moom photo en tout cas nuyu naa leen ñii nag ñoom ñooy sama public bi nga xam ni ñoom ñoo ni accompagné jusqu'à 19 heures bien sûr ak euh, li nga xamante ni moom la leen fi indil euh, ci suñu ay jeux yoo xamante ni yéen ñu toog seen kër kaf ak foo agré ngeen ci àndal mais n'oubliez pas de nous euh, appeler sur le 88 628 vingt 27 bu ko defee ma mën leen jox ci xéwal yi Grégoire tey dañuy xaw a mel na kuy 11 13 11 13 du on va mettre des chansons euh, pour satisfaire un petit peu le public bi nga xamante ni ñu ngi ni seetaan seen kër parce que moment yi nit ñi añ nañ ba pare teg nañ seen ataaye euh, gis ngeen ni léegi léegi Doucouré gis ngeen euh, ki nga xam ni moom moo di Amdi waaye aussi gis ngeen ki nga xamante ni euh, moom moo di mon très cher ami l'homme de salut du Sénégal l'incontournable l'infatigable que je salue au passage nga xamante ni moom moo di Ndiol di sama grand de valeur di Jibi Sey maa ngi koy nuyu mbokkum yaay ndeyu nga xam ne moomoo di Tapha waa ji benn Tapha waa Tapha Touré ne Tapha day jég saa rek di voyager aji bi kaay su ko fee fu ne wuyul <laughs> ji nag tey tey gis naa ne da nga bëri dosé xaw ma lu waral loolu tey dafa am ko àndal wala lan la ci sa micro dinañ la ko ubbil <laughs> <laughs> waa léegi ñëw na nga tey kan moo ñëw. tey madame moo ñëw. booy kon am leen respect ci jibi tey. booy jawaram dafa ñëw. wuy leen sama soxna moo fi ne bu leen kenn wax ñamala bu ma kenn wax bu leen ko wax ñamala bu leen ko wax dara parce jabaram moo ñëw wax leen ko tonton jibi tonton tonton soo soo tonton gis nga gis nga tonton avec ça ngeen yaakaar sama doom dana juddoo Sénégal avec ça booy amuñu respect lii moom Sonko moom laa koy jox rek mu régler ko boppam waaw mais booy maa leen di nuyu nag parce que parce que parce que xale. nee nañ tey da ngaa waa tey tey euh, lii. waaw sama yaay ju ñuy wax euh, yaayu yaayu Assane. Euh, Assane Socé Demba maa jigéen. ndeysaan. moo yëkkati jàllaabi bi keroog bi mu jógee màkkatan mu karama. jox la ko. daal di yëkkati. d'accord jox ma ko. Ah. tegal ma ci li nga xamante ni moom mooy ndoxu sam-sam. sam waaw. cum yëkkati kol. waaw ak ndoxu sam-sam. jox la soxna. yëkkati parfum kol ak ndoxu zam-zam jox samay waajur bu jigéen ndeysaan waaye maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla yoon boobu yàlla bu mu doon yoonam bu mujj ak képp ko aji woon amiin yaa rabbi waaye xëcaa waaw jamono yi Moustapha da ngay xam ni homme d'état la ah Tafa Touré Tafa Touré léegi homme d'état la waaw ah, jamono ji may waxe yow c'est un grand diplomate ah waa mi ngi xool ba xam diggante Palestine ak Israël nan la ciy doxee doxu jàmm. est waaye nee na ma jibi waaw xam naa dama leen kay vocal ndax bomb yàlla ñemewul. <laughs> man kaka loolay gën. waaw Touré. ya maanaam fii àdduna toll. waaw bu la neexee mën ngaa vocal. te bañ a dem. ndeysaan nee naa ko comme diggante Palestine ak Israël. yëg nañ ko yëg nañ ko. yëg waaw waaw ma ngook en tout cas Tapha Touré ngi koy nuyu bu baax a baax jibi euh, jaaroon fi moom tam pour nuyu euh, l'incontournable di son ami de valeur Tapha Touré merci ah du kuré waaw ku mën na jaar nuyu ma ndax ay musique lay teg euh, ba ci kanam tuuti ma delloo leen antenne bi 88 628 17 27 bonsoir salaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi lay nuyu sister noo def maa ngi lay fay bu baax yaa ngi am jàmm noo tudd Ndeye Yacine Ndeye. Ndeye Yacine. Ndeye Yacine alors fooy wootee. Thiès. tey sama mbokk pël yi dañ ñëw de tey pël yee ñëw xoola pël yee ngay doog a yegg si pël yi da def. eh waay naka nga def yi Ndeye Yacine. maa ngi fa xasaa. naka yi tey foo dëkk ak fooy wootee. Thiès laay wootee. kaay benn dëkk ñaari gaar. waaw. ah Thiès maa ngi fay waaj bés de. kon maa ngi fay waaj yendu yendu cilde yi RK Events incha allah da ngeen ko xaar. ñu yaa baax yaa baax yaa baax nday dama la bëgg may xaalis mais bëgguma la ko jox ñii taxaw ci public bi laa ko bëgg a jox. ah danga ma waa déet ñoom dañ nekk ci naaj bi depuis lors ma bëggoon la may ñetti junni mais danga may taamul kenn fii ñu yónnee ko ko ci numéro ci téléphone am s'il te rek ndax sa baax. Ah, ah nday wax leen ak nday waaye yéen tamit nee leen ko nday jox ñu ko ah waaye leen nday nag waaye leen nday nday am nga jëkkër am nga jëkkër am naa waaw awa ah, nga ñaareel wala lan nga ñaareel ñaareel yi man sama xarit sax ñaareel la ah ñaareel ah ñaareel ñaareel tante bi rek ngeen di waay way leen ma xool léegi nday ndey xale yi wayal nañ la ma jox leen sa ñetti junni bi ma la bëgg a may. déedéet nañoo rek waaw am. waa Ndiaye yow tamit yërëmal xale yi yow tamit jox leen sa ñetti junni yi rek. léegi xamoon nu muy def. waaw dama lay may ñeenti junni vingt mille mais léegi da ngay jël dix mille bi may ko kenn ci ñoom nii ma yónnee ko ko. dara bal ma aaw bi ah, eh, nee na aaw bi lay may ñaari junni <laughs> loolu gëm ngeen ko gëm ngeen ni day may aaw bi ñaari junni aaw ñaareel yi ci réew mi dañu ci juboo bariwul aaw ak ci réew mi nday nday ma ni aaw yeeg ñaareel ci réew mi ñu ci du ñu ci juboo bariwul de. man Samba juboo naa ko ma xool woyalal sa aaw bu dee dëgg la te nga jaar ci turam nag. aaw waaw woyal ka nga jaar ci turam ma may la ñeenti junni yow nga yóbbaale ko yaa ko moom. ñaaw eh, waay ndaw samba di ah waayal ma xool waaw awo ah, yaay nday dafa mel ne li ngay way nekkul sa xol dama bëgg nga way ko yëkk moo sentir ni yow ki ngay wayal sa awala te moo moom mooy ki nga xamante ni mooy aawa yaay wayal ko waaw da nga koy way da ngay dégg ci temps ci temps awa yaay awa yaay awa yaay gisal yaay ah, lu mën na ko xanaa nday wayel noonu awa yaay awa nday mii de <laughs> nday jëlal say ñetti junni <laughs> jëlal jox ko jox ko jox ko xoolal ci sa téléphone ding ko gis merci beaucoup ana Doucouré Doucouré sa élève la. ah mi ngi fi mi ngi fi mi ngi ci jàmm mi ngi ci jàmm bu baax fi mu ne nii dafa lekkul tey dafa añul. ah ah, ah añul de mi ngi nii. tey Fatima yàlla na nga gudd fan. Fatima yàlla na sa fan yu gudd barki sëñ Tuubaa ah xam nga àdduna jafewul àdduna jafewul de. grand xam nga li may wax. àdduna jafewul il suffit juste ngay xool pour gis rek du jafe si yow sister merci beaucoup pour l'appel gërëm nañ la dégg nga jot na ko jot na ko keneen na ñëw ci 88 628 17 27 xanaa xamoo boss réew mi réew mi bu nu ma joxoon kàddu ci kattanu yàlla aawa yeeg ñaareel yëpp ma jubóole leen billaay parce que dafa am noo leen di kiiwee waxtaan la rek ah yow tu espères te marier bientôt yaa Grégoire yam yaa ngeen wax bientôt am di tey sa kalanda barke alxuraan mais moo moo jëntal ci paa nag moo jëntal ci paa mais gis ngeen daal am di mi ñooy yéen chat chat yaay yaay laaj clip bi ñuy teg après vas-y ku bëri tiitar nga yow bi booy doo ma sa jeunesse un peu un bu écran yi daan tàq damay fàttaliku temps wu aywa cosaan cosaan yàgg naa Maguette Wade ndeysaan télévarité kan moo tax nga bëgg ay way waay ndeysaan bis mu la ko waxee nga ba àddina non dama bu gis ni ma xam nga ni mënoo mais da ngay insister di ci way te way way yu naqari dafay neexul daal dégg man déedéet nday yi nday a gay moo la jàngal waay. moom moom moom mu neexoon si way ak abi gànn. ndeysaan ndeysaan maire yooyu. ah ñooñu moom suñuy maamaat lañ xanaa. yàlla leen yàlla xara àjjana. ndeysaan lan lañ daan way. ndox ñooñu ñoo doon way. jëlal jëlal jëlal bu la neexee fabal. ak dama koy dagg doo ko dagg. dama koy dagg doo ko dagg. ndeysaan ñooñ ñu ngi fi. ay mag oh. lañ te ñooñu xam ngeen morceau boobu. xamuñu ko xamu leen boobu. dama koy dagg. doo ko dagg xale yi la ñuy dagg. <laughs> moom lan doon dagg foofu. ay benn cigarette. fukki ah. yooyu xam nga boobu san amul woon. Ah. ngi dégg. maa ngi fàttaliku time bi may nekk jeunesse naan cuqul naam cuqul. cuqul na kay. loolu. fu mu la woon si je me bien ak ñagas. voilà. ok xam nga yooyu tamit euh, jeunesse la. ndeysaan tey nag su ma demee ba toog ci plateau bi. gis waa loolu sa sa jeunesse la non loolu ñun ci suñu jeunesse la woon. boobu juddoo yaa ngi raam. 86 28 17 27 Grégoire prépare-moi une chanson tey ay fecc la ku mën fecc na nga préparé wu. 88 28 17 27 salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay nuyu kookaan la. man la Diarra Coulibaly. si Bamba tey sa ñeex mi neex na nag ñeex mi nga def ci sono yi neex na gis nga ñeex yi. Jaara Kulibali. Jaara Kulibali. waaw. loo bokk ak euh, Kulibali mi joué équipe nationale du Sénégal. Ah, ñaari Kulibali yi ñoo tasante. waaw. alors bii soxna Jaara la fan nga dëkk. Tamba. Tambacounda. Ah, am di fàttali ma say anecdote biir Tamba ndax dem nga fépp ci àddina Tamba bi ma fay mujjee boobu damaa ubbi robinet bi. waaw defar kafe naan. <laughs> da ubbi robinet bi defar kafe naan. xanaa boo ubbee robinet bi di nga ko dem teg ko fenn mu tàng nga mën a naan. Tamba. Tamba dafa tàng daal. Ah. koy ubbi. dëkk sa kaas xóoyal sa kafe. naan léegi yow Coulibaly. waaw. li am di wax dëgg la ci biir Tamba booy beeroo bi ne mën nga defar sa café noonu naan ko saa nga tàngal ko. loolu koy tooñee rek. ah yow yow nettali naa la waa ji waa ji demoon alaaxira. alaaxira ban. men. ñi fa dem da ngay mën a dégg li ñuy wax. waa ji dafa dem alaaxira ñëw toog ba si yàgg rek jékki-jékki dem safara. waaw. proposition la wàññantewu ma ak yéen du ma seen morom. <laughs> waaw. yéen a ngi dégg. yàlla di doxantu tukki bi malaaka bi di doxantu ba si yàgg daal ne yàlla dafa mayee pique ñiy dem safara dañuy dem àjjana doo dem. waaw ñu fekk waa ji sol costume cravate teg manteau ci kawam ci biir safara. waaw malaaka bi ne ko tàngoo mu ne ko noo man tàmm naa tàngaay Tamba laa dëkk. Coulibaly <laughs> Coulibaly ay yow Coulibaly bu dem dañ la doon teral nii. ñëwaatal ci 88 628 17 27 rapidement Grégoire mets-nous la une chanson pour mon invité euh, waa Habib yaay waaw 2S euh, nag léegi foo ñu waxtaanee ko de. lépp mën naa tey nag tey nag moom dama kontaan dama gis sama mbokk Gambien people yi. yaa ñii li may ku seen dëkk mooy supa supa. say it in English please. Super, super. Can you say it in English? They don't know um, like uh, Wolof. They don't know. They don't understand it. Yeah. So in English. Dibi say. Dibi say. Come on, man. Come on, man. Déglu rek. You, you, you, you wait, wait, wait. <laughs> you wait. You want is the girl I wait Okay, for? okay. Yeah. You come in the baby. Uh, so, uh, I uh, I'm happy for Gambian people. Okay. So I uh, I congratulation. Okay. So we'll talk about some I like the people and the na mi ngi gërëm waa Gambie ñoom ñuy jópe déplacement ñëw te ñuy artiste Gambie ñu ñëw fii si réew mi ñu war leen teral looloo loolu la wax. merci beaucoup merci. ndañ may son. waa soo la may ma tànn ñaar Grégoire. Mets-nous une chanson, s'il te plaît, si c'est bon à la régie. ñu xool let's do that, on va faire. Euh, parce euh, que euh, des minutes de. seen bopp non. ana ah, ñu bëgg foo. j'avais choisi une jeune fille. elle était là depuis. ah non je je l'avais choisie ana ki ma choisiroon sànq. je la reconnais pas hein. peut-être qu'elle est partie je je la vois plus. yow kay ñëwal nii. sa jabar gan la Juma Caam mooy sa jabar dama dama nga wax ko Père Njaga Caam ba pare eh nay jaar nii fële lay jaaree alors je vais inviter euh, sans plus tarder deux artistes qui nous viennent de la Gambie bien sûr ils nous viennent de la Gambie alors ils vont venir euh, se présenter bien sûr Gambian people get ready Eh, da ngeen kontaan léegi léegi léegi léegi léegi ndax am na seen ñaari doom yoo xam ni eh, tey ñoom la ñu nar a amal parcours bi dinañ jaar ci eh, les minutes de 11 13 yi ñuy amal de 17h à 17h40 on va discuter avec eux, on va parler avec eux, so get ready for the WLD the big show for all Gambian people see you see you okay let's go boy mu gaaw mu gaaw mu gaaw mu gaaw boss ana jeu yi ana jeu wu xale yi avant may invité sama artistes yi ñuy ñëw kii kay wiireem bi daa ay ca mu gaaw voilà viens par ici waa xale bi ku ko woo <laughs> kii ku ko woo moom waa ñëwal ñëwal viens viens elle est avec àndal ah yow àndal ah parce qu'elles sont très jeunes ah elles sont très jeunes donc bu fekkee ne am na ku mu àndal na ma wax après ñu mën ko bàyyi mu jouer d'accord ok so bàyyi ñu jël ñu mag ba pare après ñu xool ana ñu bëgg a ñëw waaw ah ah bon léegi tey ku amul 18 ans doo jouer <laughs> booy neex ngeen nag booy neex ngeen nag ku amul 18 ans doo jouer euh, booy amoo 18 ans booy euh, Habib Habib plus de 18 ans ça va de. Ah d'accord, d'accord, je vois, je comprends aussi. Ok, ok, ok. Bon, tu as 18 toi Viens. Tu peux venir Vous avez 3 minutes. J'ai euh, 10 minutes pour mes invités aussi. Viens par ici. Eh. Boy nii nee de am na 18 borom saak bi yow moom am nga 30 ans borom saak bi yow laay waxal. yow am nga 30 ans rek magum jëmm nga. viens jouer. vous voulez jouer ba ngeen jouer. yéen ba ngeen jouer. na kenn ñëw yow ñëwal ana laa toog come on kaay leen ayca mu gaaw ñëwal voilà am nañu ñaari joueur booy benn gel ngay jouel de day neex bula la gel bi gañee nga naan ay day neex dinga xam alors je vous rappelle que nous en direct la plage de Malibu Euh, vous aurez les artistes vous aurez des invités de marque ce soir inchallah pour euh, suñu parking de jeu bi nga xamante ni moom lañ leen di amal vous allez rigoler vous allez aimer inchallah les influenceurs vont venir les lutteurs vont venir les artistes aussi euh, dinañ ñëw fi nga xamante ni moom moo di ci plage bu Malibu pour nous accompagner allez-y ñam leen ci cercle yi na ku ne taxaw ci cercle yi Aïcha voilà ils vont se mettre où ils vont se mettre où bos dina la yeneen ñaar mu doon ñaar-ñaar ñu foo ak suñu public bi nga xamante ni ñoom jàkkaarloo leen voilà dangeen di jàkkaar lool euh, kan ngeen àndal booy ku góor ki wala ku jigéen ki ana ñaan na ku góor ki ma xool ana ñaan na ku jigéen ki et di des filles di wuu ay jigéen ñoo naan wuu c'est grave ayca léegi ci biti ma kii est-ce que comprendre na li xew biir biti on saute s'il te plaît sister da ngay tëb dégg nga waaw da ngay tëb biir biti biir biti biir biir ah je savais qu'elle a qu'elle a rien compris vas-y vas éliminer ah non non éliminer nañ la parce que bu baax joué bu baax da ngay tëb yow lan moo tax mënoo tëb nii xale bu ndaw lu la téye tëb ayca <laughs> biti biir biti biir waa biti biir biti biti biir biti biti biir biir <laughs> boy boy boy boy gel bi gaye na de nu mu demee noonu un un ah donc la la chance ayca let's go again biti biir biti biir biti biir biti biti biir biir biir biti biir biti biti <laughs> c'est fini c'est fini le jeu c'est fini c'est fini eh, xam nga lan la nag yow man a napp nag sànq ba léegi nga naan ma tayu ma ko tayu ma ko alors je vais les inviter à venir please come on here um, merci beaucoup dama mu jox la sa cadeau fële ne ok Habib ayca sama sama sama invité yi mën na ñëw pour les dix minutes qui mu restent nous avons deux invités qui nous viennent de la Gambie ma leen di ñaan yéen sénégalais yëpp ngeen tàccu Gambien s'il vous plaît tàccu leen leen bu baax a baax a baax a baax a baax ayca tàccu leen leen bu baax a baax a baax a baax a baax please ok yéen waa senegal li ngeen di tàccoo waa Gambie yéen waa senegal li ngeen di tàccoo waa Gambie ah, ah. waaw Barham ak Mariam Mariam gisante nañ keroog come on here na ngeen def yaay cool mais Barham yow foo nekkoon jëla sa micro euh, euh, Barham wax ba bare alors je vous euh, rappelle que tey ñu ngi fii ak Barham ak Mariama they come from Gambia ñoom ay xaritu El Habib lañu Habib xam ngeen ni moom Gambie lam fa am bari na am na fa hôtel am na fa restaurant am na fa boîte de nuit boo xam ne day dox ñi koy ñaanal nag moom liggéeyam boobu muy def ci Gambie yàlla defal ko ci tawféex moom MVP foofu ca Gambia ñii ngeen gis ay partenaire am lañu yoo xamante ni da leen indi pour ñu visiter waale en même temps c'est des mais maman wasam naka nga def eh ibil ma ko micro please ibil ma ko micro please yaa waxal ci sa Mariam seni micro ma xool yeah andi wax ba pare go go again so Baram sëñ bu mag bi naka mais I like sa yaa mën a sañse waay. yeah that's my a nga ni ka that's my thing. that's waay tàccul leen la wax. <laughs> maanaam nee sant suma yëf la you know. nee yëfam la uh, moo tax ma leen tàccu leen ma loolu ma laaj leen ngeen dañ ko xam waaye da ngeen rek. alors euh, naka naka yi waaw sant ba mu bëri no. naka Sénégal. it's always beautiful. and how naka nga koy dundee fii Sénégal. it's nice to nga rek Sénégal ak Gambie. benn bopp la. waaw we are together def na ne. we are am na cofeel bu ñu am si Sénégal. te Sénégal yi tamit am na cofeel bu ñu am si Gambie. dëgg la soo teew Sénégal rek mbégte la you know. waaw wax leen mboka dama leen buga. dama leen over buga. <laughs> dama leen over buga kon nee leen ko ñun ñoo la rawa. <laughs> so ñu ngi kontaan ci Barham bu baax a baax a baax Mariama na nga def. ani sa micro ñëwagul yaa ngi ci jàmm. yaa ngi fine. ne gisante nañ keroog. last ah, ma dégg sa voice bi may nice voice. Thank I like appreciate it. so bàyyi ma bàyyi la nga nuyonteeg uh, Gambian people and Senegalese people yi nga xam ne ñu ngi toog di sitaan. yeah we are saying greetings ñu ngeen nuyu Sénégal yëpp you Gambia I mean di kontaan trop si Habib for the invitation thank you so much for giving us the platform it's nice to be here with you once again. are you friend. <laughs> No, we are brothers bokk ndey ak baay. Ah. <laughs> yeah. Oh, I didn't know it. No. Yéen a bokk ndey ak baay. Yeah, siblings. So naka ngeen def ba ba collaborer di def musique yéen ñaar ñëpp. Naka ngeen ko yëgee kan moo njëkk fiil boppam ni man dama bëgg def musique keneen ki ko man mi sax man dama bëgg a way kan la ci yéen ñaar. Non, moom moo njëkk a way. Ah, moo njëkk a way. man maa ngi nekkandu xale laa woon. Ah, booba xale nga. ok yow mu inspire ma dugg si. mu moo ma si. moo si dugal. moo ma si dugal moo ma inspiré. ba nga dugg ci quoi. waaw exactly. ok Barham comme yow yaa tàmbali yëf yi. Um, like kañ nga commencé def music. waaw uh, musique bu ma ko dooree xal naa yàgg waa yàggut waaye uh, si si doorin bi. it was just nga jël nga am benn passion si something. nga jël ko def ko def def ko foyukaay. Ah. But naa now, the last four years, Lako Jail professionally, and okay. then nag then, like, I've been doing it. Yeah, defna, you know, I've gone to so many countries around the world. Ah, like okay. Senegal is always our priority. Okay. You understand? Why Kontandal, Habib Mom Hamnasi Darandate from day one, but I, we have that strong, strong relationship. So Manani is a sister, Manani is a twin la too. Yeah. And ah, naka nga gisee seen duo yeen ñaar. Est-ce que yow yaa ngi koy feeling ci doon yaakaar, yaa ngi ko ciy gis? est-ce que effectivement li nga ci doon yaakaar am nga ci bu baax xam nga nekk euh, nit ki soo nekkee si aar te understand nga système bi naka la defee ndaxte industrie bi dafa garaaw te yu bëree si nekk soo gisee sa rakk bu jigéen ki nga xam ne dafa am passion bi moom tam pour def ko yow foog nga taxaw pour seen naka nga ko guider naka nga ko jàppale wan ko aar bi naka la tax at the same time tamit nga sàmm koy you te depuis ñu door ko sant yàlla maa man maa ngi def suma solo carrière moom mu ngi def solo carrière am. ok ok ah ku nekk ci yéen ñaar mi ngi def solo carrière am. but sometimes we léeg-léeg dañuy ah ok ok right now I know. so recently a and it's making waves it goes like this. mais Habib ana Kar Mashallah song bi. waaw. kii play na ko dama tiit. law la cat yal nañu yàlla musal si musal ñi ci noon bu nur soppe bu ñu jege karo kar kar machallah karo kar doomi jàmbur la karo lalal banta i li dafa graw ay affaire bu dof right now it's making wave on TikTok sénégalais sax dañ ko jël moom la